yi Assane Gueye Serigne Cheikh Béthio ba tey ci yéenekaay yi bi yoon lu ñeel wàllu wérgu yaramam observateur xëy xamal ñu ne génne nañu ko démb ca rëbës yóbbu 9h ba 11h service yi docteur Gallo Diop ca point E ngir seet yaram ba ci wàllu sidit yaak xol ba la ci kilifa kaso yi jublu nag mooy xool ndax jàngoro yi nuy wax yépp ci cheikh bi mu ngi ci moom bu dee waaw ndax waree yóbbu ci pavillon spécial bu la Dantec ba fileeg doyen des juges bu Thiès Abdoulaye Assane Thioune di dogal ci mbiram kon rapport bi di téere bi kër docteur tënk la mu gis yaram ba la ñuy xaar enquête yéene kaay ne werante gi moom ak waroo gis-gis bari na lool jamono yi lu ñeel wérgu yaramub sëñ Cheikh Béthio Thioune yéene kaay bi teg ca xamal ñu ne moom sëñ Cheikh Béthio altine la ko àttekat bi dégluwaat ci Thiès waaye Thiès googe daanu fa yokk kaaraange gi ndax ci altine genn gi ci lañu fay àtte it promoteur lam ji di Luc Nicolaï geneenug werante juddu ci palug général Mamadou Sow ngir mu jiite l'armée Sénégal le ñu tànn général Sow yeneen ni général l'armée yi ko yellool daa am lu gàkk ci seeni mbir Sall ba muy wër kuy wuutu général Fall ci bopp l'armée Sénégal yombul woon ci moom ndax kii di général Mamadou Sow mii nu tabb tey jii nekkul sax ci liste président waaye ñetti général yanu ko joxoon seeni dossier di Saliou Ndiaye chef d'état-major particulier bu président de la République général Bala Keïta secrétaire général forces armées ak général Pape Samba Camara ñii seeni doxalin ci ba nu yor commandement bi ña des wàllu marché yaama neex ba ci seeni mbokki bopp lañ leen sikkee tax président ne nanu ko ko jéggal rek général Pathé Seck moom mel ni xew eh, ci bopp ministère intérieur ndax jamono yu ni ko ko denkee dénkee Walfadjri yéenekaay ne ci jamonoy ñaxtoog njort gu ñaaw la ci biir police bi ak yenn palin yi ak it wàllu ndàmpaayu Frontex anami liggéey police beeg cooxe gi ci it ñuy xaar ci moom i saafara leneen lu ñuy xaar mu indi ci yeesal di ci wàllu renseignement généro yi yéenekaay bi di réew mi moom ne lépp dina ko révolutionner indi ci yeesal président Macky Sall moom ak yeesal yi mu indi ci nguuram di ci indi leeral ñu jàng ko ci le populaire président Sall ne naam juróom-ñaari weer yi mu def ba mu faloo nguuram ci boppu Sénégal def nañ jéego yi am solo wàllu koom-koom wàllu wekk gi nu joxaat état Sénégal ak i tegaat réew mi ci raay bi waaye président gis ne sénégalais yi nag dañoo bëgg leneen lu gënati tax mu daal di indi yeesal sàkku ci premier ministre ak i jëwriñam ñu baral jéego yi baral jéego yooyu it président bëgg ci nguur gi la Soleil it fësale ko yéene kaay bu ànd wax it ci mbay mi ak baykat yi président bëggul ku leen naxee ki bon mu ne ngir pay gi ñeel campagne gerte gi Macky Sall ak ñoñom falu ku ne nu folleeku ña folleeku Abdoulaye Wade ki ñoñom ñenn ci yooyee ñooñ nag la Walf Grand Place xëy tey ñii dem nañu dooni baana baana ñee des dooni chômeur teg ci ami bor ku ci mel ni soxna Fatou Younous Aydara moom ci yéenekaay bi ma nga ca naan ay yëngoom léegi diggante pulaayam laak mbaari xar ya Amadou Diarra di ca xamle ne compte bancaire am dafa ne ci découvert di sal ne miti na waaye des rek ak ngor pacciku dellu nekk peseur gerte Gallo Ndiaye dellu ca course ga taalibeb cheikh ndokk nag ba ca kenn demul doonab sëriñu tariyaax wala li nga xamante ni mooy pajkat ndax ñooñee maaman ñooy lëmbe jamono yi mbuur ndax sénégalais yeeg seenu sëriñ rek direct info xëye ko ne ay doomu Sénégal malien nigérian ñu nga fay lëmbe ca mbuur ku ne xar foofu fa sa xel dem ci làmb ji làmb joojee VIP Gaston Mbengue bawogu leen ba tey ji ci wàllu cachet yi mu jàpp ne daa seer Gaston ci sunu làmb ne juróom-ñaar fukki million juróom sax mënu ko ca ëpp na Luc Nicolas moom laaj bi yéene bi di sunu làmb def mooy ndax dina ca génn li waral laaj bi mooy ay personnalité ñu ne ak i kàngam yu ngemb njaboot ak tulli ne seen ginnaaw